fuñu waron def ñent sappe ñet sappe lañ ko def racc ko ba nit ñi gëna soré sore loolu ay dispositif la yo xamné def nañu ko lepp nak sëriñ bi mo ñu digëlon ñu taxawé ko ñu taxawé ko nonu depo ak digël yi nga xamné mom la docteur yi joxé diso nañ ji tam ak docteur yi nga xamné ñofi nek bañu wax ñu tam norme yi nga xamné mo gën ci ni ñi dilié de bi ak ñi wara sol gants yi ak ñi wara tak masque yi tam nga fi mom niñ ko baxo waxee ci lepp rek.